comme dafa ànd ak les chrétiens ci plateau télé yi ñu mel ni ñu leen di invité man sama question la en fait. Mm. pourquoi duñ leen gis ci ci ci ci plateau télé yi ndax ñoo bokk Sénégal te lii mooy débat bi. Mm-hmm. ay waay te je pense que ne lii rek wane na ñun fu ñu féete ak ñeneen yi du ma nag critiquer ndax ñoo bokk suñu réew. ñu ñëpp ay mm. sénégalais lañu mais lu tax. gisaguñu parce que woor nañu dix jours suma ma mhm. lu tax gisaguñu ci plateau yi fenn fu ñu invité ay abbé ay prêtre mhm. ci ay plateau yu mel ni ñuy waxtaan l'islam wala ñuy waxtaan christianisme christianisme macha allah sama question. Mmh. raxu sa mmh. question boobu dinañ ci dellu si. Mmh. bu ñu tàmbalee waxtaan bi mais dama bëgg ci dialogue bi yow da nga cee parce que d'accord yow it Vincent en fait dafa am poñ bu am solo bu mu soulever mu ne dialogue amul. surtout le terme dialogue islamo-chrétien ci laay ñëwaat parce que boo xoolee Sénégal suñu premier président c'était un chrétien muy Léopold Sédar Senghor mm-hmm. mu jiite benn majorité bi nga xam ne ay musulmans la ñu mm-hmm. tey déjà loolu njëkk na wane ni que <coughs> problème amul àdduna di dox chrétiens yi amoon ci taxawaay bu am solo parce que tey su la neexoon nga ne président sama religion na nekk mm-hmm. amaana amoon na tey bu ñu taxawee benn taxaw duñu mun a egsi fii wala dañ mais dañoo jël yaatal jullit yi wan leen ni que naam sax président c'est un musulman mais chrétiens yi def nañu tey benn distance bi nga xam ne def nañ ko nguur gi ba mujjee jàll mhm. loolu muy mécanisme yi nga xam ne mi tant d'autres églises teg na ko rek ngir mun a bañ ay coow di am wala ngir mën a rataxal diggante yi mhm. ba bëggoon rek abbé ñëw également ci mécanisme entre autres yi nga xamante ni église yàgg na ko teg ngir gën a sàmm du ma wax dialogue parce que daal ne nga dialogue amul mhm. mais pour gën a entre nous et les entre les musulmans rataxul ba pare. bon Kumba euh, euh, wala da nga see bëgg a wax yéen. Eh, dialogue bi laa wax ndax d' accord ngeen ci wala d' accord ngeen ci dañuy point boobu c' est important heureusement bi ñu ko préciser parce que dialogue boobu ngay wax. Hmm. xëy na peut être mën naa ne ñu ci bëri d' accord ci parce que dialogue foo ko déggee rek c' est parce que y' a divergence. Hmm. et tey jii lu ñu gis ci diggante musulman ak chrétien je pense xel war na dal ci côté boobu parce que dañuy dund ensemble euh, gis nañ fi ci lu yàggul dara weeru kooru daaw ay hmm. chrétien. ñoom ci boppam dañoo génn di partager ay ndogu mhm. même ren am na même ren sax xëy non j'ai pas vu mais c'est une chose xam ne chrétiens yi dañ koy def ci euh, musulmans yi vice versa mhm. balaa nga koo xam événement jot lu ci mel ni korité tabaski da nga gis chrétiens yi ñoom dañuy dem jàppale musulmans yi musulmans yi bu Pâques jotee nga gis leen ñu dem donc je di dis euh, dialogue amu fa weesu na dialogue instant bi xëy na peut-être kay la question dont on se pose mooy euh, tey jii Sénégal lan moo waral tey jii mu réussir pari boobu ba musulman ak chrétien mën a nekk benn. gën ko rataxal quoi tax na kay man kay rek. gën ko ko ñëw nga yow xanaa mosoo lekk nga lax. <laughs> ci laa di ah, yow itamit nag lu la dal. man man fi may euh, rejoindre par rapport ak euh, euh, li père wax que. d'accordul dialogue bi mu ko am consensus. Mhm. man j'aurais bien voulu ñu dindi dialogue bi indi ci familiarité parce que dafa nekk loo xam ne depuis un bu bout de temps la mu exister. Mhm. Euh, pour man nit ñi dañuy utiliser ñenn ñi je je dis pas la quasi totalité ñenn ñi. Mhm. dañu koy utiliser sans pour autant de savoir la signification. parce que ça existe depuis yàgg na dañu juddu fekk ko si. muy loo xam ne communauté bu am entre ñun ak ñoom da ngay toog ci benn jotaay ñun étant jeune doo xamee kuy chrétien ak kuy musulman. ci débat yi dañuy gis dañuy wax doo mës a gis kenn ku toucher sensibilité jàmbur. Mm-hmm. cela montre que li ñuy wax c'est juste pour magnifier ce qui existe déjà. Mm-hmm. mooy lu exister la ñuy magnifier ak benn mot boo xam ne pour man place am du foofu. Mm-hmm. famille la benn coexistence la benn déggoo la bu am suñ biir boo xam ne je pense que naka lañ mën a def ba loolu gën a samp. loolu mooy laaj bi. macha allah. Pathé Gallo très yow moom bul wax je suis d'avis que dialogue islamo-chrétien am na Sénégal ndax boo xoolee l'histoire nous informe que maam Thierno Seydou Nourou Tall radiyallahu taala anhu ak ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Mouhamadul Fadil amul da dañ terme bi dialogue voilà loolu laa bëgg expliquer loolu la ñuy d'accord naa na Sénégal ndax dafa yàgg daf ñoo mag ñun ñi toog fii ndax boo xoolee comme ni ma la waxee maam Seydou Nourou Tall radiyallahu taala anhu dafa amoon diggante bu ratax digganteem ak kii di président Léopold Sédar Senghor Serigne Fallou naka noonu kii di Serigne Abdou donc loolu mën naa wax ni fii lañ ko fekk et puis relation bi am diggante musulman yi ak chrétiens yi daanaka fii rek ci Sénégal euh, ni mu rataxee ni mu neexee euh, Pape Sidi dafa nekk li nga xamante ni askan wi yëpp dañ ko nawloo ma jàpp ni man tamit ci sama gis-gis dialogue boobu munuñ munuñ koo munuñ koo bën a tudd ndax loolu c'est avant bien les indépendances ndax ñoom ñi mag yi ma tudd fi léegi jàppale nañu Léopold Sédar Senghor ci bu mu jiite réew Sénégal même bu mu génnee tamit daal nañ ko jàppale yàgg ànd ak moom ba héritage bi nga xamante moom la fi bàyyi tey jii ñun ñi ak xalif généraux yi fi yàlla teg ñoom tamit ba léegi ñu ngi soññ loolu ndax boo xoolee da dem ci yenn ville yi Pape mhm. ñu def fa benn diggante chrétien ak musulman fii ci Sénégal. bi ma nekkee xale sama cousin da doon jàngee pôle 6 bu Njaaréem en face prison bi. Mhm. ma dem seen benn fête gis ñuy lekk mbaam ma ne man chrétien laa ñu ne ma noo tudd ma ne Atanas. <laughs> sœur lilian dugal ma ci otoom yóbbu ma suñ kër vérifier ndax chrétien laa mu dem sama yaay ne ko kii mos ta nekk chrétien jullit la. dóor bi dóor dañ ma dóor yu métti yoo xam ne sœur Liliane boobu ba léegi dama ko mere moo tax il faut que ñu dialogue pour ma jubóog sœur Liliane ah, <laughs> voilà donc je pense que le décor est campé on veut parler de dialogue islamo-chrétien am na ñu tourné ñu jàpp ne terme bi dafa péjoratif waaye raxu dafa laaj question boo xam ne c'est une grande question ndax plateau de télé yi sénégalais yi ñoo ko moom te sénégalais yi waroo leen dissocier ci seen ngëm-ngëm ba carême bu jotee dañ leen a waroon a ñoom it jox seen waruwaay. Mhm. seen war seen waru gar ci li ñu moom. Mhm. te bokk ko nu ngeen ko jàngatee Abbé. Euh, yaakaar naa ne jàngu bi yàgg na taxaw ci plateau yu ni mel euh, ndegem archidiocèse Dakar <coughs> nañu firndeel rekk ne messe bi ñu njëkk a jàng fii ci senegal ca Gorée la woon en 1444. yàgg na. 400 1444. 15e 15e siècle. première messe à Gorée. ça fait 600 ans maintenant. oui sa ça veut dire loolu yàgg na on commence par un monde monde bi dañ ko fi fekk mu am ñi ko defar alors waaye cathédrale Ndakaaru bi ngeen di gis armel la woon armel jullit. te lébuy te lébuy ñoo may suuf mhm. donc ay jullit ñoo ko may donc loolu du dialogue <laughs> loolu dund la c'est une famille mais ci biir famille nag yenn saay ah euh, doom bu jigéen ak doom bu góor ñu xaw a frotté foofu la dialogue di jéem a am nag mm. te loolu mënul ñàkk dañu bokk dëkk bi donc le problème n'est pas normal mm. le problème est normal mm. mais sénégalais daa jàpp ne problème c'est anormal non non le problème quand il a plusieurs volontés problème lu normal la daa war di am yenn saay maintenant ci fànn mm-hmm. boobu dialogue mën na am mm-hmm. voilà mais en temps ordinaire c'est une famille c'est une vie voilà mm-hmm. donc ñu joge ci loolu ci atum 1955 mu am premier archevêque Ndakaaru tudd Marcel Lefebvre mu ne man dama bëgg a def évangélisation par l'écrit noonu la créé imprimerie Saint-Paul mhm. ak librairie Claire Afrique te même université IFAN ca Saint-Paul la doon defee ces documents parce que loolu déjà média la woon en ce temps cardinal Thiandoum doomu réew mi mu agsi mhm. ne moom amul xaalis donc mënul créer média mm. waaye li mu mën a def mooy sant labbe yi ak chrétiens yi comme Vincent ñu nekk ci télévision bi bokk bërëb yi ak seeni mbokk musulmans yi mm-hmm. donc télévision yi itam baax may ñu espace mais abbé gisoo ni loolu des na tamit ñu nekkin ci télévision yi ouais. je prends un exemple rek mm-hmm. euh, temps wu koor dañ doon amal amoon na benn émission wala benn théâtre bu fi amoon muy teewal paroissien xam nga ko mm-hmm. dañ ko doon gis mais ren amul mu mel ni tey qu'on le dise ou pas tey télévision nationale peut-être mun nañ fa dugg mais télé privée en général tey bu fekkee bu fekkee ku ko diriger yorul peut-être identité religion wala identité ethnique bi parfois day metti pour communauté bi mun fa affiché wu te man c'est un constat que j'ai fait peut-être yeneen télévision mooy boo xoolee yu ci bëri nekk ni wala suñu fësal ci yenn kii boo xoolee émission wala télé bu nekk ab benn émission nañ fay am carême bi parfois suñu audience yi du kii noonu du ñu am tout le ay émission parfois aussi qu'on le dise man ci sama gis-gis mhm. suñu ñàkkum peut-être ay chrétiens yuy diriger ay télévision am na impact bu baax aussi suñu feeñ on n'est pas tout le temps présent ci chaîne médiatique yi c'est un ouais, constat nga xam boobu moom un travail intérieur mhm. pourrait aider à à mieux être présent mhm. parce que télé yi li ñuy wër mooy élément que l'élément soit bon Euh, déjà Vincent pourra en témoigner. émission bi muy def fii c'est la croix et la bannière. boobu rek boo xoolee. waaw mais benn boobu kese il faut que ça se passe bien. et mm-hmm. qu'on prenne toutes les mesures pour que ce soit des émissions de qualité. Mm-hmm. am na solo et ça là-bas le bas blesse. comment ça. oui Vincent peut t'expliquer toutes les difficultés qu'il rencontre. Mm. voilà pour que la, présence de la communauté chrétienne. sur les médias. Mm-hmm. tey tey jii rek mun naa joxe benn exemple. tey rek suñu émission midi bidi bi. dañu jékki-jékki rek tëbal ko. ndax la daa ba xam comme ni dafa amoon benn kii euh, commercial du direct du dara ñu yóbbu ko 17h yëgaluñu ko kenn kercen ni toog seen télé di xaar xam nga loo loolu yëpp dafay àndee gàllankoor yoo xam ne euh, du du jaadu. loolu loxoo ko def xam naa ki ko def. <coughs> léegi xam nga midi bu jotee. kercen mm. dañuy toog dañuy naan dañuy xaar euh, émission bi ñëw. Mm. léegi bu fekkee da nga war a tëbal émission bi. nga yëgal ko nit ñi à l'avance wala nga bind benn bande sax. ne ah, lii moo tax ba émission bi daw. mais doo jékki-jékki rek tëbal ko. mais je pense que li ngay wax ni ça revient à peu près à ma question. voilà nag la ñu man bëggoon naa. yéen ñi nga xam ne vous êtes des chrétiens surtout yow ngay un homme de média qui a une émission à la 2STV à ton avis sa dû à quoi lan mooy problème bi. non. Euh, pour problème du entre ñun du am. man ci émission fii. Ah, jot naa fi bi fi Taïb Socé nekkee. Mhm. invité naa ko Maodo invité naa ko ci mhm. sama émission. Mhm.